Sénégal 7 euh, salaamaaleykum donc euh, comme euh, ni ngeen ko doon seetaanee eh, nous étions en direct depuis Thiès Kaay ki nga xamante moom mooy le maire de la ville de Thiès doon amal li nga xamante moom mooy conférence de presse pour dikkaat ci li nga xamante moom mooy problème foncier boobu lay am foofu la ca Thiès muy le litige foncier foofu la ca diwaan bu dégg nañ li nga xamante ni xamle na ko loolu la ñuy jàngat ci plateau bi ak suma ay confrères asalaamaaleykum Zeyna. maa ngi lay fay am noo def j'espère que yaa ngi ci jàmm. di nuyu internautes yi ñu doon suivre depuis tout à rawatina nag li nga xam ne moo di euh, point de presse wala sax conférence de presse. Euh, bu maire de la ville de Thiès di Babacar Diop. Mm-hmm. ñu ànd ak yéen gën a comprendre l'actualité. merci beaucoup soxna Zeyna. mu ngi noonu donc ngir feddoo ak ki nga xamante ne moom mooy Birama Thior le rédacteur en chef de Sénégal set ñu war a jàngat li nga xamante ne moom mooy actualité bi waaye dooree ko avec euh, cette sortie du maire de Thiès Birama salaamaaleykum. waaleykum salaam DJ Am maa nuyu bu baax. Mhm. et di nuyu également Soxna Zeyna di am plaisir di partager ak moom plateau bi le de mieux comprendre l' actualité comme ni ñu koy defee quotidiennement mhm. fii ci Sénégal c'est di nuyu également toute la régie ak euh, internet yi faral di jël rendez-vous à chaque fois qu'on est face vraiment la caméra. merci beaucoup Birama Thior alors ma tàmbale ko ak Zeyna ñu ngi doon suivre euh, conférence de presse bi kii di Babacar Diop gannaaw ba le président Bassirou Diomaye Faye euh, demee foofu la ca diwaan bu Thiès ngir ñaawlu dénoncer li nga xamante ni moo fa am ci suuf si la nañu ko caxat caxatee tey kii di maire bu Thiès woolu na euh, presse bi dégg nañ nag ay explications yoo xamante ni yëkkati na ko muy jëm ci wàllu woowu la d'ailleurs benn question bu njëkk nga jàngatal ñu ko ana lan nga mën a jàpp de manière générale ci discours bu le maire de Thiès Babacar Diop merci beaucoup euh, Am merci beaucoup Biram aussi ma man tamit plaisir lay am di bokk ak yow plateau bi euh, tey moom da nga gën a leer comme toujours <laughs> am sañse comme toujours mu nekk nag une déclaration boo xamante ni <coughs> man je pensais que sax point de presse lay def bu gaaw euh, ak des preuves ak des documents man loolu laa doon xaar maa ngi doon xaar tey monsieur le maire monsieur Babacar Diop mm-hmm. indi lu ñu ay documents buy firndeel li muy wax. parce que c'est aussi simple nga toog nga wax wax wax wax wax en au finish les gens ne comprennent pas dafay mel ni sax tey man sortem bi euh, il n'a pas été préparé ou il n'a pas été bien conseillé pour fair cette sortie parce que su fekkee dañ la tudd ci yëf ñenn ñi naan dëgg la am dëgg. Mhm. quand tu dois faire une pour def say déclaration wala indi ay leeral. Mhm. danga war a ñëw ak ay preuve mhm. wan indi ay document su fekkee nee nga du yow Zeyna la ñu ko jox am la ñu ko jox Biram la ñu ko jox. nga indi ay këyit wane ni ah Zeyna de la jox terrain bi ñu ma ci tudd Zeyna la ñu ko jox terrain bi Biram la ñu ko jox mais. tel n'est pas le cas même boo xoolee sunu ay confrères journalistes yi nekkoon sur place mhm. ils ont même demandé à ce que mu jox leen la liste des bénéficiaires mhm. euh, ci hectares yooyu nga xam ne moom la ñuy moom la koy tudd mhm. euh, leneen li ma ci dolli aussi moom mooy je pense que ni euh, démb rek ñu ko doon waxtaanee fii ak jëwriñ Ndiasse man pour man lu l'actuel régime lu mu war a njëkk a def lu mu war a njëkk def lu urgent ci foncier bi nañu audit commune yëpp ñu audit commune yëpp. waaw nañu audit maire yëpp. lan moo tax nga parce que sax saaxe terrain bi dafa dafa dafa ëpp. gis nga boo génnee Thiès je dis pas il l'a mhm. man jëluma kenn ne kii moom moo def wax dëgg. Mhm. mais da ngay jël exemple yu bari nit ñi bu ñu lay wax li xew seen commune yi da ngay jommi. Mhm. ñu lay wax li xew ci ci ci ville yi da ngay da ngay jommi. Mhm. je pense que on doit fair un audit bien bien bien bien bien fait. Mhm. su ko defee dinañ saytu nan la ñu yoree woon suuf si. parce que boo xoolee tey la mairie la commune bu mu mënta doon euh, municipalité bi son budget n'est pas assez grand. nga gis ku nekk maire même pas un mois waaw. tabax na kër fii jënd na kër fii may na kii terrain may na kii terrain mais mais euh, alalu askan bi ngay joxe. moom ngay maye. Mhm. il parlait tout à l'heure de jox conseil ay terrain mhm. man je ne trouve pas de problème un conseil municipal euh, nekkoo nekkoo euh, fenn foo xamante ni amoo salaire amoo dara mhm. peut-être le minimum mën nga ko u daggal benn cent cinquante mètres carrés au moins mu am lu mu tabax dëkk fa ak njabootam mais kantaan nag bu fekkee géwél bu jug nga jox ko waykat bu jug nga jox ko fecckat bu jug nga jox ko théâtre kat bu jug nga jox ko mais au nom de quoi la ñuy dagg terrain di ko may question bu si une personne am na kër dëkkoon fa wala looyee na kër amay problème kooku mën nga jël yow ci say ci say suufu bopp. nga may ko en tant que maire nga jàppale sa population on n'en disconvient pas. Mhm. mais saax saaxe bi am ci suuf bi je te jure. Mhm. suñ ci defee audit dinañ yuuxu dina jóg fi ñu ko foogee. mais Zeyna Zeyna une question. aujourd'hui xëy na li Sénégalais yëpp di posé. Euh, ma dugalaale Birama Dior. Mhm. mooy. Euh, qui sont les responsables euh, uh-huh. parce que gis nañu euh, bien vrai que le maire Babacar Diop bëggu ci àddu posé nañu ko question bi à savoir ana ñan ñooy bénéficiaires yi uh-huh. parce que loolu la euh, Thiès waay doon xaar on parle de treize hectares diw am na huit hectares uh-huh. diw am am na trois hectares mais ana ci yan anam la ko amee bu fekkee que ni toujours en est-il c'est vrai au fait dañu ko am ñi ngi lim noonu bëggoon nañu xam exactement est-ce que ces personnes benn question dafay daal di posé wu mhm. mooy ana yan anam la ñu moomee terrain yi est-ce que dañu ko jënd su fekkee dañu ko jënd cela veut dire dañu leen ko jaay ndax kuy jënd ku nekk je pense que ni eh, dañu la jaay mhm. ki la jaay est-ce que li ma la jaay teg na ko ci yoon est-ce que d'abord moo ko moom mhm. li ma la jaay ci yann condition la la ko jaayee et puis xaalis boobu aussi ñu jaayee terrain yi ana xaalis boobu le je pense que c' est autant de questions yoo xamante ni tey Thiès waaye tey loolu lañ doon xaar mu apporter ci réponse malheureusement déglu déglu nañu ko mu yëkkati ba daaneel andiwu ci benn benn benn réponse par rapport à cette question euh, Birama ban jàngat nga ciy amal bu njëkk euh, par rapport à cette sortie du maire de la ville de Thiès Babacar Diop je pense que <coughs> excusez-moi ci situation bi c'est la sortie du maire en tant que mm-hmm. euh, premier magistrat n'est-ce pas de la ville de de Thiès docteur Babacar Diop sinon yokkul dara ci coow li ah donc le débat était là ouais. dire le bruit depuis que gouvernement bees bi ñëw donc arrêté des constructions sur le littoral président bi def une visite inopinée de Mbourkat n'est-ce pas donc euh, cité bi nga xam ne foo lañ bëggoon def extension n'est-ce pas président bi fi nekkoon Macky Sall amoon fa ay projets yu am solo yoo xam ne bëggoon na ko fa def en temps en terme d' infrastructure n' est ce pas. Mm-hmm. ñu jàpp ne am na ay ay njuuj njaaj am na pàccoo comme ni nga comme ni ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxee li am solo pour man c' est pas vraiment. Euh, tout ce dilatoire n'est-ce pas di dem ci euh, réseaux sociaux yi à travers les médias am na ñu def am na ñu def maintenant mm-hmm. loolu sax mu ngi commencé booy suñuy nopp mm-hmm. loolu tout le monde la sait am ay coupable léegi nag li Sénégalais yi di xaar surtout Euh, vraiment les sénégalais lambda comme niñ leen di wooye ñi nga xamante ne vraiment egguñu ci niveau bu ñuy séddoo suuf. Mm-hmm. ñoom lu ñu bëgg ko ñu mooy ñu débusquer n'est-ce pas. Mm-hmm. coupable yi. ñi nga xam ni seen loxo laale na ci. te man depuis tout le temps man damay wax ne affaire bi chaîne la. Mm-hmm. ñi am suuf ñu ñuy wax ne am nañ ay hectare wala ay quarante parcelles dégg nga ko ni ko Jomaa waxee woon dégg ngay docteur Babacar Diop waxee. defe naa ñoom ñu tëb rek. gàddu loolu yëpp def ko ci seen actif. Mhm. ay nit ñoo leen ko jox. moo tax ma ne chaîne la. Mhm. léegi nag chaîne boobu boo déggee ni président Bassirou Diomaye Faye waxee <clears throat> am na ay information yu probant mhm. yoo xam ne lu leer la ci boppam. dem na ba ne sax am na koo xam ne am na ci lu toll ci quarante. quarante parcelles. xam na boppam. quarante parcelles donc il se voit à travers donc son discours. Uh-huh. bu kii ñëwee